mbégte rek ak euh, vraiment euh, sant waa mouvement nawetaan tambalé ci le président de l'ONCAV Amadou Kane ak qui euh, ko représenté au niveau départemental Pape Mbodj di président ODCAV ak monsieur l'inspecteur départemental des sports lii dal mbégte bu rëy la honneur bu rëy la département de Mbour waaye tamit buñ ñu commune malikunda fait que ñu koy joué précisément à Nianing ñu am nak tay benen honneur bu ci top muy yilif wa ONCAV ak ñëpp monsieur le ministre des sports le déplacement ñoo féké journée de démarrage bi vraiment mbégte le buré ci ñun mënu ñu di ko jaajëfal monsieur le ministre nak min na stade bi je crois que c'est sa troisième fois ici donc mu ngi wone proximité bi nga xamné am na ko ak le monde sportif di traduire rek li nga xamné président dénk na ko te mo xam ko té diko doxal moy fexé ba sport di occuper seulement les les jeunes fexé ba sport vraiment nek un moyen bo xamné bi dina dina en tout cas yok Sénégal ci ay domaines yu bari n'est-ce pas donc ñu koy jaajëfal bu baax euh, di jaajëfal monsieur le sous-préfet aussi mu ñëw accompagner ko bàyyi week-end am bàyyi activité ñëpp ñëw ak mboolem autorité boo xam ne bii tey déplacé wu ba ñëw ci jouru ñaniñ bi vraiment ñoo ngi lay jaajëfal euh, sport nag ci sunu commune je crois que am nañ déjà un bilan boo xam ne bi mën nañ ko wone muy accompagnement boo xam ne bi ñoo ngi koy def annuellement aux équipes waaye wàllu infrastructure tey jii mën nañoo tudd stade Nianing bi nga xam ne Caroline Faye dem na ba mënatul abriter rencontre yi tey nañ nañu partenaire bi ko defal ñoo ngi ko ci jaajëfal bu baax vraiment dimbal bu rëy la ci ci jeunesse Nianing ak jeunesse commune bi waaye ñoo ngi am projet stade nag à Malicounda boo xam ne bi espace bi déjà délimité nañ ko euh, les plans ñoo ngi waxtaan ak ñi nga ne ko yi nga ne ci war waxtaan ak ñoom ñoo ciy waxtaan te ngi am yaakaar du dara ko donc ñu doon ñaari en tout cas infrastructure dina commune bi

té ñu amoon ci mom confiance confiance bi yokuna autorité yaa ngi leen di suivre mais ñun tamit ñu ngi gis kon dañ koy ñaanal yalla rek yef yi jeex ci jàmm té bu kenn loru bu ci kenn jëlé feebar bi lolu lañuy ñaan ci nawetaan yi nga xamanteni moy phase nationale 2021 li ci des nak moy euh Sène parce que momi tamit mënoon na nek maire mbass mi ñew mu ne len non non non fi kenn du fi ñew waye comme mom xamna na xamna it yéene bi président Macky cal am ci ñëpp pour ku ci nekk mun a dox li ngay dox te doo loru mu jël ko dugal ci ay koppar aussi pour gunge ñi nga xamante mooy ONCAV mais gunge ODCAV de Mbour loolu dañ ko ci sant bu baax waaye bettuñu xam nañ ne xam na ne tey xeex bi nit war a xeex te mu jàddu ci àdduna bi surtout ci Afrique ak suñu pays yi nga xam ne amul doole mooy jàppalante te ci loolu la nekk muy xeex di jàppalante di jàppale ay mbokkam di jàppale population mais di jàppale képp ku ko yeewoo te mu mën ko mu ngi sawen kon Maguette dañ lay sant la gërëm ci taxawaay di gërëm Pape Mbodj président ODCAV moom i tamit taxawaayam bu rafetuloon Maguette du ñeme ba ciy dugg kon tam liggéey bi muy def rafet na du ma xaar na ngeen posé ma question ci ci wàllu Caroline dama ciy wax parce que réew mi àla kulli àllin il faut nit ñi di wax dëgg réew bu buñ demee ba ku wax dëgg nit ñi duñ la mën a comprendre wala ñu dal sa kaw réew moom kenn kenn waru ko sax nangu li am ba am moy Caroline fay yagul biñu ci defee lu ëpp milliard pour défarat ko waye dam 1 milliard 4 350 dem 400 waye stade lu mu rafet rafet lo ca def def alal ba paré joxé ko ñing ko jox teewuñ ko duñ ko wara a ci yàqu la jox dama né stade pour ñu ko défé pour football jamono dox ba ñu war fa meeting ci politiciens yi la bok ñu war fa lamb war fa def lu ne su dee da nga koy joxe da nga war a am ay mesures exceptionnelles ñëw di taxaw ba du ñu bënn gazon bi di samp ay tip foofu wala ñuy xotti gazon bi di ci def ay mbir loolu suñu ko deful loo defar it day yàqu rek su fekkee ne dañ la jox stade aussi te granulés yi nga war a def pour mu entretenir stade bi wutuloo ko amoo ko bu yàgg day yàqu suñ ciy sotti xorom day yàqu loolu lépp bu ñu ko suivre nii rek lay mujje moo tax ñuy lancé en appel ñu yor stade yi wax ma mbuur rek mais ñu yor stade yi yëpp ñu gën a góorgóorlu te bañ a di xoole loo xamante ne 1000 francs mën na ko defar nga bàyyi ko ba mu nekk chantier boo gisee muy xomak jëndal poti peinture teel ko anticiper su ko defee du nekk chantier waaye boo ko seetaanee lépp yàq yàgg naa leen di recevoir di waxtaan ak ñoom Caroline dinañ ci def gazon parce que am na ku leen dimbale pour loolu waaye au delà xam ngeen ne ci programme chinois bi la bokk dina bokk ci stade yi ñu war a defaraat ci li nga xamante ne mooy les 40 milliards yi ñu joxe ak beneen programme bi nga xamante ne stade yu njëkk yi fi nekkoon yëpp dañ leen war a defaraat kon suñu ko defaraatee il faut nit ñi changer pexe changer pexe mooy bu ñu ko joxee collectivité territoriale bi état central yoratu ko ñi ko yor war nañ kee boole ñi ci bokk ñu toog ci fulla ak fayda yore ko yorin bu rafet comme bu ñàkkee andi kon war nañoo fexe ba du ñàkk ñu téye ko ni ko war a téye